voilà Alaaji ñu bàyyi la ak sa gan. am mbégte ak kontante di dalal ki nga xam moom la ñuy wax dàkk dàkki la. dàkki la. Eh, eh, Maysa Maysa dàkki la Maysa waaw asalaamaaleykum maa leen nuyu yéen ñëpp ñuy toog plateau bi yëpp. maa leen di nuyu di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan nuyu tamit sama ak sama yaay. Mm-hmm. di nuyu waa Advance Musique bi nga xam ne fa laa nekk comme label quoi. Eh, fàtte na madame de. non maison nag mooy président célibataire yi waaw. fàttewul ah, waaw noonu la demee. voilà voilà mu nekk président mu la. Mm. mais la bon en fait la mooy the killer quoi. the killer mooy lan waaw the killer. c'est clair comme par exemple cest à dama ko slingué quoi comme par exemple boo xoolee aux États-Unis maanaam comme tey anglais bi boo doon def the bi the ñoom daal la ñuy wax quoi cest à loolu mooy indi flow bi quoi. mooy indi flow waaw. daal waaw mais killer. killer bi cest boo gisee ma indi daa killer bi parce que dañ ma tuddee woon Dracula. te Dracula waaw ñenn ñu bëgguñu woon ma tudd noonu quoi. Hmm. lu yaa ngi comprendre. Dracula mooy lan. Dracula mooy un buveur de sang rek mooy vampire bi quoi. Ah. Eh, yooyu nga waaw si yooyu laay yëngu de si lay dox. ay Dracula ay Dracula ay killer waaw di genre affaire mais mais mais nag mais nag maa am concept la quoi c'est-à-dire du question de du question de killer boobu noonu maanaam killer boo xam ne dafa yor paaxa di rey ah. en tant que tel la quoi non non c'est-à-dire maanaam killer bii nii comme par exemple waaw si game la ba pare tey dafa comme par exemple ku teguwul si yoon maanaam mu teg la si yoon maanaam lool loolu mooy couleur bi quoi te par exemple voilà koy jalgati hmm. waaw mu teg la si yoon quoi maanaam lool loolu mooy couleur bi quoi mooy concept couleur bi mooy jalgati nag est-ce que du yow yaay man moom jalgati wu moom defal sa fulla bañ a say noonu yoonu ndaw du gaaw defe naa loolu laay mooy li ma ci jàpp yeneen yëpp da ngay bërëxal dooy bërëxal <laughs> non bërëxal moom sax c'est-à-dire yi leer na leer nañ la <laughs> la nga waxaat man loolu laa ci jàpp man laa wax. Ah, yow keneen ku ci jàppale yéen am nga lu ngeen ci jàpp man li ma ci jàpp laa wax. jéggi naa daal loolu léegi eh, leneen li bërëxal yéen jàpp ngeen ko leneen. yow dama ne it's times up ma ne ba ba maa am bés bés dina ñëw quoi. waaw maanaam nga nga nga jóge si down maanaam down mooy suuf. waaw maanaam dem dem ëpp quoi. waaw it's times up dinaa mos a romb down di fly si ëpp. waaw waaw yeneen bagage quoi mooy waaw. c'est-à-dire son bi moom loolu la quoi. son bi loolu la waaw waaw loolu la. ay compte banque yu feesal ay. waaw ay waaw yu kii maam tey say ndaw bi warul toog da nga war a jóg. xam nga fighting ba am tey si tey li say li say morom am quoi. Hmm. waaw parce que ndaw bi tey war warul toog warul toog. warul parce que toll nañ jamono boo xam ne nii ndaw bi warul toog di xaar ku ko wutal am xëy. Hmm. waaw ñun ñoo war a jóg. xam nga dem dem dem wuti am xëy quoi. Hmm. te boo amul am xëy doo doo am dara. parce que li naan xaalis kenn du ko kenn du damay dégg comme par exemple ñu naan xaalis kenn du ko kenn du ko kii waaw kenn du ko lijjanti dañ koy liggéey xaw ma. kenn du ko liggéey kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti mais nag au contraire li ma njëkk a wax la xaalis maanaam kenn ko lijjanti dañ koy liggéey hmm. waaw boo bëggee am xaalis da ngay jug. nga fighting waaw pour mën a am. mais pourtant booy ñu ngi jóg di fighting di ñafe mais pareen saay sax fu ñu ñafe mooy li nga xam ni moom moo leen di të looy wax jeunesse boobu am na ñoo xamante ne bi tooguñu. mais par exemple dañuy dem ba nekk fenn di jóg ko daanu. Euh, si politique yi ñëw football leen ñu dégager ñu recommencer à zéro ñooñu loo leen di wax façon yooyu. waaw ñooñu bon li ma parce que dama koy dama naan damay jox exemple sama bopp rek. parce que tey jii man maa ngi ci benn maa ngi benn industrie di fa liggéey def naa fa plus de booy xool. Mm-hmm. te tey jii ma man mënu ma jëndal sama bopp sax vélo te tamit mënu ma bàyyi. Mm-hmm. parce que bëgguma sama loxo di féete suuf te teewul maa ngi jàpp ba tey. yow maa ngi jàpp ba tey quoi. d'accord parce que maa ngi fa tey conducteur électronique la te damay liggéey plus de seize million par vingt six jours hmm. te ba léegi avancé wu ma mën si industrie te industrie bi mu ngi avancé. mais léegi yow xam nga ni nga nekkee noonu xam nga léegi am na yoo xamante ni boo ko nekkee nga xam ni yow bañkat nga mënu waroo mën a nangu tamit yenn yi ci ba ci si bërëb yi ngay liggéey de parce que mën nga nekk ci bërëb boo xam ne yaa ngi fay liggéey mu wóor na ni yaa ngi fay def lu am solo. donc war ngeen a mën a taxaw pour tamit kaas loolu seen nekkin gën a loolu parce que boo kaasee kaasut ngir seen nekkin gën a ñoŋ est-ce que ñi ci bitti mën nga leen a ba max pour ñoom it ñu mën a def loolu. waaw loolu loolu dëgg la mais mais di nga nekk si comme benn bërëb di fa xoslu mais yow boo xoolee yow di nga bëgg bërëb bi yow li li nga li nga bëgg maanaam ñu ñu avancé maanaam yow di nga bëgg a avancé. Ah. du mais yow da ngay da ngay kii si suuf da kii maanaam nan laa ko a expliquer. waaw waaw voilà noonu la demee yow da ngay defar da defar maa am ñu yàq suuf mm. waaw noonu la demee dafa bëri ay défaillant dafa bëri ay défaillant te noonu la fa demee parce que taxawal nañ syndicat mais ba léegi syndicat mënul avancer mm. ba léegi nii mënagul avancer parce que booy defar xàddi xàddi wu leen waaw mais taxul ñu xàddi ba tey ñu ñu ngi jàpp mm. waaw ñu ngi jàpp ba léegi nii ñu ngi jàpp ko voilà léegi kon ñu ñëw ci li nga xam ne mooy carrière musique bi musique dafa laaj ay euh, frais moyens et cetera mm-hmm. loo xamante ni moom la laaj te yaa ngi nii wax ni yow fi ngay jëlee say source de revenu jàpp naa ne ci sa liggéey la. waaw sama liggéey la te mënoo cee jënd welo. waaw donc eh, ndax kon di nga ci mën a génn ci musique bi ak musique bi fi mu toll nii nga xam ni daanaka caaxaan moo fi dox réew mi. waaw ku la dàq caaxaan moom la musique am gën a avancé. waaw waaw noonu noonu la demee li nga wax dëgg la te tey dama la koy dëggalal ko waaw ah. loolu mais yàlla dimbali na man si label laa nekk parce que advance musique laa nekk. base euh, bi ah, non non Rosso moo nekkoon Jaameru quoi Rosso léegi man maa ngi foofu genre ñoom ñoo war sama lépp waaw Advance Music ñooy producteur bi ñooy manager bi hmm. ñooy financé clip yi son yi lépp ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy kii quoi waaw ñoom ñoo ñoom ñoo nekk sama ginnaaw quoi hmm. Advance Music léegi comme nga xam ni léegi daanaka musique du Sénégal euh, TikTok bee koy lancé euh, boo seetee rappeurs yi nga xam ni bëgg nañ seen rap dox dañuy woo ñamal jaay loo xam ne bi lu jëm ci son wu ay gaaruwaale parce que gaaruwaale dox na parce que gaaruwaale boo seetee léegi ustaas yi gaaruwaale ku ci dàq gaaruwaale moo gën a jëm ca kanam waykat yi ku ci dàq gaaruwaale moo jëm ca kanam wala waxu sànnante track gis nga morso titi bi ni mu doxee donte donte neex na parce que jox na ñaar ñëpp li ñu moom <laughs> comprendre jox na ko jox na ko kii sa <laughs> kii sa koñ bi maa fiy daagu mais xam nga kii tamit daal de bii sama kii la kii maa ko moom affaire yu mel noonu quoi nga xam ni façon yooyu boo seetee rappeurs yi tamit amoon nañ ko fii ci seen ay ahlu birig ak ngaaka bi ñuy def affaire yooyu est-ce que yaa ngi suuraale public boobu nga xam ni mën nañoo jàllale léegi sa musique bon en boo xoolee public gu rab amatul. amatul waaw. waaw public gu rap amatul quoi. Mhm, dëgg la parce que rap rap comme son nom comme son nom l'indique quoi. ah amatul rap mooy rocceeku si àdduna yi puuk àddinay puukare waaw mm-hmm. mooy instant nag loolu mu ngi fi ba tey quoi mais lu lu lu tuuti ñoo koy teewal fi mu nekk nii mm-hmm. instant nag ñaar ñaari public ñaari public gu rab la am na am na beneen rab rab bi mooy beneen bi mooy ruuxu si àddunay puukareew ruuxu si àddunay puukareew ah. mooy comme li ngay wax nii tey sëñ comme ni nga xam ne tendance bi moo leen kii comme par exemple def sound rab si ay tuuti sabar waaw du genre affaire yooyu noonu mu def tendance def buzz mm-hmm. yooyu man defuma loolu ko mm-hmm. man waaw rab bu engagé bi maanaam rab boo xam ne day yeete comme ça comme son bi ngeen ko déggee sànq maanaam man si loolu laay si loolu laay dox quoi. si yooyu nga nekk waaw si mm-hmm. yow ci rab waaw parce que toll nañ dañ nekk Sénégal boo xam ne nii. waaw maanaam dañ talul dañ talul divertissement quoi. taluñu ko waaw waaw taluñu taluñu. lu tax taluñu divertissement. waaw parce que parce que munoo nekk si dëkk boo xam ni dëkk bi amul liggéey. dëkk bi amul liggéey. Mm-hmm. xam nga bëri na coow. ba pare ñu bëgg ne ñun dañ bëgg a divertir wu quoi. waaw dëgg la léegi euh, ak fi mu toll situation réew mi fi mu toll parce que gis nañ groupe kër gi génne na benn son boo xamante ne bi wax na gis nañ tamit yenn ñoo xam même kër kii rek gis naa benn boy boo xam ne def na benn son boo xam ne mi ngi ko jagleel mbëri mm-hmm. di wax ak ñoom nga xam ni dafa nekk loo xamante ni bi actualité bu am solo la est-ce que yu mel noonu tamit yaa ngi ciy xalaat waaw mel noonu est-ce que am nga ci wala yaa ci xalaat am naa si ñaari son ñaari son te ñu ñu waaw ñu ngi waajal image yi quoi hmm. waaw benn bi maa ngi ko tuddee Alaboni Sénégal benn bi mu ngi tudd seen métti Sénégal Alaboni Sénégal waaw léegi taxal ba gars yi kii ba noppi après nga soog ñoo ñëwal ci yooyu Omar euh, boo amee la waaw man li ma dégg ni neex na hmm. neex na euh, li muy li muy wax set na musique bi set na du loolee set na waaw ah, waaye <laughs> non Omar Omar dëgër na fit de. <laughs> non non non. Omar yow man maa la ko mais wóor na yàlla baa ko leeral. xam na des fois déglu ah? ak dégg du benn. waaw waaw. Hmm. ah, ah. mais kii boo ko dégloo. xam ah. ne mën na. Hmm. waaw du mën na loolu moom. la laa njëkk a sentir ci bi ma déggee son bi nga xam ne aussi def na ci yitte ba doon clip bi doon clip boo xam ne neex na seetaan aussi boo koy xool set na côté boobu laa waxee quoi maanaam set na leer na euh. waaw la féliciter par rapport à ça mm-hmm. dégg nga ne da am benn label parce que label bi aussi comme li nga wax lépp mi ngi koy def pour yow mm-hmm. boo cuune woon du nga ko def pour yow waaw parce que tamit gars yi duñ investir ci fu dara nekkul ak fu dara mën a génn mm-hmm. mais ñi ngi def lépp pour yow mais yow est ngi ciy gis sa bopp yow côté boobu laa bëggoon waaw effectivement maa ngi siy gis sama bopp bu baax a baax a baax parce que boo xoolee tey nga nga ñëw comme li nga wax loolu c'est pas donné à tout le monde. Mm-hmm. maa nga nekk artiste label jël xam nga di def si yow. bon loolu rek loolu rek maanaam gis sa bopp weesuwul loolu quoi. Mhm. maanaam gis sa bopp weesuwul loolu. parce que boo génnee son moom moo koy jël. def ko mais ngay dugal dara mi foofu laay waxee quoi parce que investissement aussi noonu la da ngay dugal dara di xaar leneen. si effectivement maa ngi si gis sama bopp bu baax. Mhm. moo tax ma wax lool parce que ñoom ñoo jël sama lépp ba pare tamit ñoom boo génnee son moom moo koy def si cho si chaîne YouTube mhm. am. lu lu si am comme revenu moom da koy bokkaat ak yow. waaw te te pourtant man defuma man kii wu ma dara. Mm. man joxe ma fa dara ñoom ñoo ma jël ba pare ñoom ñooy dugal affaire ba pare bu affaire yi génnee ñoom ñu kii man sa talent sa talent lay exploité quoi non du question sama non non mais waaw ok waaw waaw donc nga ciy am sa wàll waaw noonu noonu demee mais da nga a am production wala dara non musuma musuma kii production c'est-à-dire kii mu am suñ projet projet projet en image la quoi mhm. comme comme tey say yi kenn kenn xamaguma benn xam bi mhm. léegi dañ bëgg comme par exemple di teg ay image di teg ay image ba am benn visibilité bi ba pare soo ko teg ay kii mhm. soo teg production boobu. Mm-hmm. Dakile maa ngi lay dégg ci sa biir wax nga ne dafa am ñaari façon rab ñi nga xamante ne dañuy rab xawma lan ak ñi contre ñuy ruux xawma lan. àddina waaw rab rab rocceeku si àdduna yi puukare ak rab ruuxu àddina bi voilà yaa ngi wax ba waxaale ay sabar ak yooyu. Eh, xalaatoo ni eh, nga nga fekk si gars yi ci li nga xamante ni moom la ñuy def moom la ñuy faral def chaque jour wala moom la ñu xewal léegi le fait foofu dina la gën a yombalal message yi ngay véhiculer mm-hmm. nit ñi gën ko mën a dégg aussi. parce que rab hardcore bi ngay wax noonu euh, nee nga sa tendant à disparaître mais est ce que yaakaaroon ni nga ñëw laal ci loolu nga xamante ni moom ngay wax xam rooxu ruuxu xam ko waxee noonu ci àddina waaw est ce message du gën a jàll foofu nga allier les deux si comme li nga wax noonu tamit mun na nekk waaw mun na nekk mais du moment sa message day passé rek waaw mais c'est-à-dire man dama dama am ay kilifa comme lawel ma nekk maanaam ñoom loolu lañ. ñoom ñoo bëgg li nga li nga li nga. loolu lañ te ñoom gis nañ ne lii nii nii maanaam sama message man dina jàll. ok d' accord loolu loolu tax ñu kii ma si quoi. amoo question voilà léegi saay nee nga woon Sénégal àll àll àll ba di Sénégal. benn maire wax na ma ko démb man kat de moog. na ma <laughs> sama yaay nag nee man maa dàqu noonu. non da ngeen moom. benn ngeen maa ko dàq ko mbaadu mi yaa ngay bëgg a naan naa koy yëngalee déglu moo tax mu ne ngay ñàngal di tega mais bu ma amee ku mooy président célibataire yi yaa ngi dégg moom leeral na boppam ba noppi daan bu ma amee jël bàyyil naq saale léegi saay léegi euh, wax nga sànq àll Sénégal son boobu bëgg nañ ci dégg xool ba xam naka la waaw bon en fait àll boni Sénégal bi boo ko gisee hmm. c'est-à-dire dama ci wax comme par exemple comme comme sànq fi ngeen waxee ne comme affaire de tendance ah, parce que dama ko dama ko dama dama ko kii si ñun quoi ah. dama maanaam dama dama ko njëkkee si ñun si ñun si ñun rapport yi quoi dama ko njëkkee si ñun rappeurs yi laa commencé comme par exemple ñun li affaire bi léegi rab bi dafay tournure xam nga dem dem si beneen level quoi. waaw waaw dem dem dem si beneen monde. c'est-à-dire foofu laa foofu laa waxee ñu dégg kay xool. non bon bàyyi ba ma génne ko rek saa baal baal ma def ko kii rek baal ma def ko surprise rek. saa xolo saa non baal xolo saa dama xool dama la ko ñaan rek jàpp si baal baal ma def ko surprise. waaw voilà te parce te tamit xam nga futur règlement borom studio bi quoi. Ah, waaw Rosso quoi. waaw mais waaye baa noonu télé bi gars yi ne saa yi naa si quoi. nag maa ngi doon wax ay nga de mais mun naa mun naa indi leneen. mun naa mun naa indi leneen quoi. mu naturel waaw waaw mu naturel quoi waaw. war a mass no more game fegi de sutura ñàkk mel ni Adamo maa ngi seen really pop si beneen avenue avenue dap lamsal makeup lonko sagam wey bi careful gàddu maag fendi sacrifice gas di waaw ay bagage aw gën a xam c'est-à-dire dafa ay ay mots yoo xam ne xam nga bugguma ko wax ci télé bi quoi parce que bi may man ko yaa ngi bippee ku bëri crédit ah. <laughs> <laughs> ku bëri crédit ngay bippé ci sa lii di ko clash dafa mel ni jigéen ñi aussi la ciy clash parce que maa ngi dégg make up ay sac Fendi marque la loolu boppam laay waxal léegi sac mm. Fendi ci boppam laay waxal parce que léegi gars yi ku deful rap waaw di tëgg ay sabar rek yu kenn xamul yooyu noonu di yor ay marque Fendi na kuy def make up ba mooy loolu quoi di def loolu mooy waaw ah, waaw waaw léegi yow léegi ginnaaw yow sa sa te tëgg sabar yi ñoom ñooy make up ba gàddu sac wala des rappeurs yi lay wax ñoom ñoom kii la Fata non non waxul Fata non waxuma waxul Fata de. Fata bu ay ay ay lu ngaaka ngaaka benn rappeur. non mais ñooñu. tudd ma benn eh, ku a jël nag nga jël. mais est ce que yaakaaroon ni tamit xam nañ seen bopp. ñooñu tamit euh, bétti. Hmm. est que nekkul ni li ñuy def noonu. Hmm. dañoo dégg jamono. comprendre loolu laa nii waruñu di lëmbal aussi. waaw mais non non non est nekkul ni loolu la quoi. kan moo lëmbal xam Fata bi muy wax. comme tey Fata bi muy wax affaire jël mbalax bi dugal ko ci rab beeg yooyu nit ñi lañ ko doon critiquer. mais ba léegi léegi fekk. mais dem nañ ba gars am na raison ci kaw ñi nga xam ni ñoo doon wax ay hardcore ak yooyu. Hmm. ñëpp nelawi nañ tabat léegi moom mu ngi fi comprendre nga. est-ce que tamit loolu nekkul ni nit ki dafa ëpp ouverture gën a leen a dégg jamono tamit. cest de lii nii lii. waaw am dañ koo teel a def. comme li gars yi di def comme rap dugal si sabar di genre affaire ba dañ koo teel a def hmm. am dëkk boo xam ne dafa sous développé hmm. waroo waroo divertir da ko bar bu yow boo defee son maanaam di wax problème yi fi am mais du moment ah. que ni sa message day jàll rap message la non bu leen di jàllale si loolu yàgg na fi parce que maa ngi gis démb maa ngi lu benn son bu waa PBS def mais du njaaru lañ ci àndal bien sûr si mais te mais teewul ñoom jàllale nañ message. waa waaw mais mais léegi. mais léegi gars yi jàllale message léegi boo xoolee dàggasante ngay dégg son yi wala son boo xam ne yow boo ko dégloo di si mën a gaaruwaale wala di genre affaire yooyu noonu. mais looloo dox dégg nga moom peut-être lool loolu moo dox ko loolu moo dox mais loolu loolu nekkul woon aar bi. du woon tey si tey jii nii lañ ko waroon ah, def quoi parce que boo boo xoolee ah, seen label parce que boo xoolee hmm. boo xoolee ñun ñu ñuy roy si loolu noonu ah. ñu ñuy roy si loolu waa États-Unis la te États-Unis ñoom développé na ñoom bu leen neexee ñu divertir wu waaw léegi euh, li may wax mooy est-ce que seen label yi euh, collaboré nañ ak ay euh, tiktokers ak ay tiktokers parce que léegi label yi war nañoo am ay tiktokers ak parce que bu son génnee ni ngay demee ci rajo yeeg tele yi di loolu léegi dafa mel ni dafa am kii yoo xam ne moo gën a loolu influenceur yooyu nga xam ni tey mën nañu jël dara influenceur yeneen booy yoo xam ne ñoom dañ ciy topp rek di suivre parce que tey ji am na koo xam ne mën na def saison génn ci keneen jël ko koo xam ne kii moom këlee ko influenceur rek mu topp ci moom it jël son keneen jël ko keneen jël ko est-ce que seen label yi am nañ kii yooyu tamit non exactement xaw ma ndax sax label am na ko mais man moom man am naa am naa benn influenceur quoi. waaw bu ko wax de bés boo ko waxee rek. waaw comme bu ma ko joxee tey sama sound nii. moom moom mu jàllale ko. te tamit sans sans influenceur sax sa waa koñ boo leen joxee affaire yi rek sa waa koñ dañ lay bëggee boo leen joxee affaire rek ñoom mën nañ ko jàll waaw yéen influenceur lañ waaw da leen di jàppee influenceur rek ñoom mën nañ ko tas waaw mais label nañ ko am tamit war nañu seet ñi nga xamante ne bi tey am nañ ay nangami mille abonnés ay kii ak yooyu bu defee di liggéeyandoog ñoom am lu ñu leen di jox bu ko defee ñuy jàppale seeni artistes di def mais Advice Music loolu yow label Advice Music du du label bu ndaw ko waaw waaw du label bu ndaw label bu mag la mais ça xam nañ ko TikTok TikTok tuuti lañ la may euh, temps bu gàtt ngay mm-hmm. def est-ce que mën nga ci def son bi yëpp dinañ ko accepté mën nga dugal clip trois minutes waaw mën nga dugal clip na li saa di wax ni ah romb na trois minutes man dafa ma dal ci weekend bi dafa am benn boy ku rasta nii am na ci clip bi wax ah, tour bi laa xaw a fàtte benn jigéen mi ngi ci clip bi noir blanc la ko def la naturel benn fas mu ngi feeñ benn woyu mbëggeel bi gars yi di partagé temps yi yaa ngi gis benn boo demee ci TikTok bi temps yi ñu ngi koy lii bu baax a baax hmm. waa ji son mi dégg naa yàgg na musique ku aay la nag rappeur hmm. mais amul woon kii mais da ci dagg tuuti sànni TikTok mais loolu ñu commencé di ko salaan ji nga boo demee boo delluwaatee YouTube hmm. man dama delluwaat YouTube di xoolaat waa ji di déglu ay son mais da ngay affaire bi yéeg. Ah, te pourtant yàgg na fa. maanaam son yi son yi yàgg na fa. Ah. mais extrait yi mu dugal TikTok nit ñi commencé di ko partagé surtout xale yi jigéen ñi après ci ngay sentir ni. nit ñi ñi ngi dem di wëri moom mooy kan peut être bu ma yoroon sama hmm. portable damay saal sama hmm. portable. yoo xam ne bu ñu ko defoon rek jamono léegi tey seen kii naaw. Ah. nit ñi xam leen rapidement. Hmm. am na benn waay buy way comme Souleymane Faye. naan la soxna ba tóor di gerte <laughs> bi waaye. mais sax la noonu waaye comme li waaye dafa neex de. waaw man dama koy siiw lu bari bari vraiment waaw jeune la mais dafa aay. waaw mais da mais dafa aay. mais xoolal mais dafa dugg ci benn chrono boo xamante ni bii léegi fi mu toll nii affaire yi actuelle léegi affaire yi day toj. est-ce que tamit yooyu tamit pareen saay bu ngeen ci xool waaw parce que am loo xamante ne bi tey bu ngeen ci xoolee di ngeen gën a méngoog jamono ji affaire bi gën a kii booy yi gën leen a capté gën leen loolu parce que jàpp naa ni fi mu toll nii mm-hmm. euh, am na ñu bari ñoo xamante ni bi euh, ay réseaux sociaux yi lañ jaar tey jii ñi ngi ci kaw mosuñoo mm-hmm. def tele mosuñoo nekk sax ci télé te tey jii ñëpp leen xam Omar oh au contraire sax waa télé yi ñooy daw. pour wutali leen gi ñëw de. <laughs> <laughs> Ah? de. comprendre <laughs> loolu dafa nekk loo xamante ni bi lu am solo la. une minute mhm. dinañ ci bàyyi xel incha allah. léegi bàyyi ci loolu xel léegi saa yi léegi looy euh, tàggatoo. bon li may li may tàggatoo mooy. xam nga maa maa ngi daaki la mu ngi waajal comme ni ma ko waxee sànq ay projet yoo xam ne nii en image bëgg naa tey am plus de visibilité. te tamit dinaa dinaa bàyyi xel si li ngeen ma wax mm. waaw dinaa bàyyi xel bu baax si li ngeen ma wax quoi comme du genre comme page TikTok wala influenceurs yeeg mm. affaire yooyu noonu di leen jox bagage yi ñu koy partagé bon maa leen di nuyuwaat yéen ñëpp ñu toog si plateau bi di nuyuwaat pa ak mère waaw di leen wax wa salaam quoi waaw jaajëf Faye daaki la mu nekkoon bëtti dàkki la mm-hmm. euh, ñu loon ko macha allah mm-hmm. euh, waaw am na flow beeg yooyu waaw fi mu toll mais xam naa euh, rob boo rombee miyaa ba wër na yàlla. <laughs> ay jërëjëf mi ngi noonu. <laughs> alaay bu ñëw dóor la ay arrêt. lu leer laa la léegi merci beaucoup euh, Dakile ñu lay souhaiter une très bonne chance yal na yàlla jàpp ci carrière bi.